salaamaaleykum euh, mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum waa Sénégal ak fépp fu sénégalais nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu euh, à travers sunu chaîne euh, leader bi di SSP ah, ñu ngi nuyu fi nga xam ni émission yu garaaw yeeg débat yu garaaw yeeg émission yu neex yi fii lay jàll débat yu neex yeeg série yu neex yi loolu àdduna yëpp xam nañ ko jaaraama SSP ñu ñëw ci seen émission jéggi dayoo Cheikh Ahmed Cissé salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah alaaji Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay euh, fay euh, di la ziar euh, Cissé ñu jàll ci émission dégg dayoo tey nag thème bi ñu indi ma bëgg ñu waxtaan ci société bi tolluwaayam jëfin yi doxalin yi ak guute gi mu mën a dem ñu njëkke ci tolluwaayu société bi tolluwaayu Sénégal sax laay wax tolluwaayu Sénégal mën nga ko waxee nu ne mën nga ko interpréter nu ne mën nga ko tuddee nu ne bokk na ci ni ma ko bëgg a tuddee nga xam ne dafay dëppook ñëpp ne dëgg la mooy ne dafa mel ni cin buy bax amul fenn fu sedd dafa am ay mbir yu composé société te mbir yooyu yëpp mu ngi sooxee ci Sénégal euh, muy économie muy dem ak dikk muy jëflante muy wér-gu-yaram muy diine muy njàng muy politique yi ñoo composé société te yii yëpp mu ngi sooxee ci Sénégal léegi nag nangu neen ne yii yëpp ma tudd feebar na waaye kan mooy ki waral jàngoro bi loolu buñ ko xamee eh, dañuy rey boroom jàngoro ji ngir mu bañ a wàlle mooy dernier wareef bu ñu war a def ñu faj borom jàngoro ji wala ñu quarantaine ko fexe ba du jaxasoo kenn te kenn du jaxasoo moom tey société sénégalaise lim doon demee loolu la ñàkk société bi taxawul ci économie bu dëgër ndax Sénégal bokk na ci réew yu gën a pauvre ci àddina société bi dafa taxawoon ci nit ñu am valeur moo tax benn borom xam-xam bu mag Maulana Alhaji Cheikh Omar Touré daan wax mu ne Gàmbi suuf si barke na loo bay mu sax mu ne Sénégal nit ñi ñoo barki luñ bëgg yàlla dimbale leen ci kon li mu bëgg wax ba indi exemple walli boobu boobule mooy niti Sénégal moo barke xam nga ne Alhaji Cheikh. Sénégal am na nit ku judd di séeréer jàng ba doon grammaire français jombal français yi ci làkk tubaab loolu am na. Mhm. kooku Léopold la tudd Senghor la sant. Mhm. Sénégal am na ku juddoo Fuuta jàngee xam-xam ci réew mi dem ba Azhar nga xam ne mooy assemblée nationale xam-xamu islamiya mhm. mu fekk ñu bind ci bunt bi noo mel sa junnee moroomam fi mu ne tey ngeen fen lu hmm? luñ ko laaj mu tontu mu bàyyi leen fa laaj deux mois kenn mënu koo tontu. tokkan la Cheikh Omar la tudd Tall la sant. xam nga ne senegal am na ku fi juddoo musta ju kër baayam te dem na ba raw ci lislaam taxaw ci dëkk tubaab bi ko noonoo ne fukki junne nit la tuubal mu ne déedéet kenn xamul nu mu toll ëpp na téeméeri junne. treize wala dix-huit làkk bu waxee ci arab ñu interpréter interpréter interpréter mu tuubal ñëpp. ci pédagogie islam bi mu jàngee ci réew mi kooku alhaji ibrahima la tudd ñas la sant ñu bari di ko wax Baye Sénégal am na benn jaam boo xam ne bi France taxawee hmm. ne ku wut mu rey la ñu bind ñuy waroon a dee ca géej ndar ñu war a toll ci ñetti téeméeri nit ak lu topp am benn nopp bu ko dégg oo tubaab bi ba mu ñëw mu ne ko boo ko defee yàq dari France ba àdduna tudd mais moom a régler la situation xam nga mu ko réglé. yéeg ci gaal gi ñëpp gis ko ne mu ngay ñëw mu aj mbaggam mi rek ñàkku ñëpp ñakk waxul joxewul parole ni discours xam nga ko kan la. Hmm. Cheikh Sidi Hadji Malick si la sant. moo réglé te waxul. Euh, senegal am na koo xam ne ci dëkki kaw gi la dëkk mu am équipe bu mag moom ak Nottingham Forest moom ak Derby County daan def jaloore ñu toog fanweeri at jëluñu ligue mu ñëkk nekk meilleur buteur meilleur buteur dàq paas jox leen ligue bi après plus de trente ans Bambali la dëkk Sadio la tudd Mané la sant Sénégal am neen benn nit boo xam ne démocratie Afrique ni mu doon demee moo ko tourné waat teg ko ci maanaam avancement wu Afrique ci côté administration moo ko tourné teg ko ci voie démocratie ak développement ba Afrique yëpp daj te joxewul discours Abdoulaye la tudd Wade la sant donc lu tax ma lay indi nit ñi mooy pour dëggal li ma wax ci commencement bi ne Sénégal ay nit yu am valeur la am. waa léegi qu'est-ce nit yu am valeur yooyu. waaw dafa mujj nag am nit ñu amut valeur. waaw léegi moo ci sama laaj ci loolu la qu'est-ce qu'on loolu jëluñu ci ñooñu ay référence ba léegi euh, loolu rëcc lan la ñu def ba loolu rëcc. li ko def mooy nit ñu màgg ñu ne nit ñu baax ñoo leen war a wër. yonent bi bi mu doonee weer dafa amoon ay biddiw muy ay saxaaba waaye malheureusement suñ ñu màgg ñi ñu yées ñi ñoo leen wër dama doon waxtaan ak benn nit ku baax Cheikh Ahmed foofu dañ fay dañ fay dañ fay taxaw ñu baax ñu màgg ñi nan lañu xoolee ba ñu yées wër leen mbaax ñu bàyyi ñu yéesu jege leen tapp seen kaw loolooy mbaax ok àggale mbaax dëgg hmm. mooy nga xam ne kii dafa bon nga may ko mu jege la may ko saas ngir mu baax ëllëg waaw léegi ñu leen xool ba bon googu far moom bëggut a baax hmm. xam nga mbaax dafa yaatu waaw saa ma respecté la nga respecté ma du mbaax commerce la da nga investir da nga bëgg retour waaw ak man non damay expliquer ma ne loolu du baax loolu commerce la man baax la ci man waaw yow noonu nga gisee. mais mbaax mooy. nit ki def la lu bon nga def ko lu baax. waaw nit ki wax la lu bon nga wax ko lu baax. ci ñun nag fayda mooy charisme mooy teg acte sur acte dama lay respecté danga may respecté damay baax da ngay baax damay noppi da ngay noppi damay màndu da ngay màndu loolu commerce la c'est juste ku jënd mayoom di ko jaay. Hmm. ku jënd teleem di ko jaay ku am teleem di jaay ta d'antenne publicité kooku loolu la moom respect la am. respect la koy jaaye waaw ñëwaatal ci loolu li ñu def ba mu rëcc ñu ba heure bi si si ci lay ñëw mais danga laaj lu am solo da nga ne ñu baax ñi. waaw nan leen sàggane ba ñu bon ñi wër leen. waaw ma lay dëggalal ne mbaax a tax. waaw ci loolu laa lay expliquer que. ki nga xam ne moom loo ko defal ci lu baax mu fay la ko. kooku mm-hmm. baaxul day commerce. Mm-hmm. waaye mbaax nag. mooy ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam woon toog mu leer ko ne ñii ay naafeq leen te dàqut leen. Mm-hmm. bu leen dàqut rek bon. ndax den koo indi ngir mu defar ñu bon pour mm. pourquoi mu war a dàq ku bon moo tax wax kat bi mu ne ku yàlla yónni yaa ëpp mbokk ndax ñi baax sa mbokk leen ci def lu baax ñi bon sa mbokk leen da ngeen di bàyyi ci kër gi mm. dama wax ak kilifa googu ma doon tudd Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mm. baayam mooy xalifa Baye Fall tey ma ne ko kuy seet yéeféer ak nit ku bon ci nit yàlla yi ngay dem lu tax ñi leen wër ñooy yéeféer ñooy ñu bon yéeféer dëgg maanaam ñàkk gëm dara bon ñooñu la muy soi-disant bëkk néeg wala jege ñaale sëriñ bi mm. parce que lii ma wax lu ma gëstu la ba xam ko ba dund ko xam ne néew na ko jege sëriñ ragal yàlla mm. néew na ko jege sëriñ màndu mm. néew na ko jege sëriñ jub néew na ko jege sëriñ bëgg sëriñ bi te yàlla rekk tax loolu néew na torop mm-hmm. dem na ba jikko yu yées bokk na ci ñoom boo joxee sëñ bi àddee ñu ne la jox ma dara boo leen joxut bu subaa boo ñëwee doo gis sëñ bi wala nga bëgg dugg ñu ne la jox ma dara waaw man vécure naa man dund naa ko. man dund naa ak lu gën a piir loolu. Hmm. am na ñuy exagéré ba bu leen leeree ne soxna sëriñ bii dafa bëgg sëriñ den koy santaas ci tëddee ko wala mu jox leen xaalis. am na ñu yegg foofu dama ne. Hmm. yii si jege ñale lenn ci sëriñ. waaw yegg na ci santaas jabaru sëriñ bi ba tëddee ko ngir mu am accès ci sëriñ bi. loolu it lu ma dund la parce que parce que soxna sëriñ yi euh, dañuy dañuy am jafe-jafe pour jot seen borom kër. waaw pourquoi dañul am jot wala wéet gi muy wéet ak sunu borom mooy bari. non wéet ak sa borom bokk na ci wéet ak sa soxna. man gooma loolu c'est faux. waaw boo bëggee yàlla ba bëggoo jigéen bul takk. Hmm. waaye ku takk war a mën a yor. waaw sarta la. waaw waaye ñoom dañ leen di may yenn saa yi. Hmm. te bëgguñ. d'accord dañuy xemem takk. Hmm. dóor dóoraat bëgg bàyyi. dafa am léegi nag ci biir loolu bëkk néeg bi dafay sib action ndax moom la sëriñ bi di waxtaanal xam na ne yow tolloo sëñ bi jàppoo ax maanaam axu sëñ bi jàppoo ko. soo mel nu génn foofu. duñ fa génn da nga ma daane dafa solo même ma daane maanaam taalibe bi day xam ne jàppoo axu sëñ bi léegi ci biir xam gi mu ko xam mu santaas la yow nga nangu ko ngir mën a jot sëñ bi am na li tax ma indi sëriñ si du yab leen nii xeeb leen ndax ñoom leen yaakaar ne ñooy nitu yàlla. ñoom leen yaakaar na ñoo baax ba yow sa kër kër lislaam la mais buñ na kër dina yow waxoo sa kër kër keneen nga wax ngir fa nga yaakaar yàlla kon seen normal ma jël leen exemple léegi nag ñi yées ñi ñoo leen wër ba jàpp soxna jàmbur di ko tëddee neex ba jur ciy doom mu ngi am doomi sëñ bi taalibe bi jur ko ah sëñ mi nit la nag am na ñoo xam ne ñoom den koy yëg dañoo tële ba pare mën a takk ngir sagal seen bopp xam ne taalibe bii mooy dóor te dañ ciy waxtaan sa léegi-léegi boobu kaa boobu tam am na maanaam sëñ bi leer ko ne yaay laal jabar ji mu ciy wax ak yow yow ni loolu si si xam nga man mbirum awra ci dëkk bi maa ko yor dem koy avoué am na koo xam ne bi sëñ bi dee dafa mel ni ku am cicatrice di tiit di yuuxu bi sëñ bi gaañoo waaw la mel ni àq daf ko commencé dal waaw su gisee jigéen rek day génnee awra bi naan maa ngi nii nu mu neexee kaay ñam xam nañ ko moom bëkk néeg la waa ci kër diréem mag la bokk xam nañ ko dañ koy denc ci néeg léegi lu tax la moo ko def man dama gëm ne àq la parce jàpp jabari sëñ bi di dóor rek te sëñ bi yëgul mu dee yàlla wan la boppam am na koo xam ne moom dafa yoom mu takk seet munu ci dara mu faju faju mënta wér mu woo benn taalibe na ko njaboot gi yow laa ci gën a yaakaar soxna seedee dama kii ci moom dama am ngànt ah, mën nga fa dem di ma ci wuutu Jamil xam nga ni yi gën a dangereux ci réew mii ci yow lañ koy déggee. taalibe bi di dóor rek ah léegi léegi sëñ bi ko mbaa doo ko sonnal mu ne ko déedéet maa ngi barkeelu rek et c'est normal ah. d'accord démb dem na euh, Radisson Blu. Hmm. ma daje fa ay kilifa. Hmm. benn jigéen woo ma. Hmm. na li tax ma bëgg la. mooy dafa am looy wax lu nit ñi dul mën a wax. amoon naa jëkkër. mu ñëw bi ñuy tëdd mu solo ma ne ko góor du yéeg ak suma kaw lal yére simil. waaw mu ne déedéet bi mu ñëwaatee. Hmm. dildo la ma jëndal xam nga dildo. luy dildo maa ngi ko bëggoon a indil mooy awra fowukaay. lu indil soxnaam. waa cadeau soxna si foog ne portable la muy dossier waale quoi pour na ko dajji ak yooyu. mu ne ko mën nga cee bégal sa bopp. mais mu ñoom ñaar nañ nekk noonu kese. waaw mën tase. ndaw si mu nettali la loolu. ndaw si nettali mu ne boobu la ko ne danga may fasen ndànk ci njëkk sinon ma ñaawal ko.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 ba administration commencé am réeru ba mu am ay part ba jamono Sonko ñëw ba noonoo am ci politique ak lakk kër ak lakk osan léegi yow noonu loolu ak tim nit dóor loo ko gisee mooy li ma ne nan lañu baax ñi mën a sàgganee ba ñu bon ñu dugg seen biir ah. laa la jox exemple yi Lamine Gueye indil la ne côté administration tas waa léegi loolu lan nga def ni moo ko mën a redresser dictateur bu dul rey wala suy rayit bu mu bari moo ko mën a redressé. dictateur bu dul rayee. wala buy rayit bu mu bari da nga def ni Sénégal def fi dictature solution la fi. mën na nekk di dictature démocratie démocratie am na. ok mën na nekk loolu rek laa gis ne moo ko mën a saafara nga ñëw ci côté diine Maodo nekkoon fi. nit ñi ñoo jàngal Maodo dafa jàng xam-xam ba am jaamu yàlla ba doon lu kenn xamut man ba tey xaw ma Maodo. Mm-hmm. te gëw mën naa ko mën a xam tamit waaye damay ñaan rek bëgg ko ba dee. waaw mhm. su ma ko bëggee rek ça va. Mhm. génn àddina am ñum yaroon ba def leen muqaddam ñu xool sëriñ Babacar si bëti xeebeen ne matul ñu sëriñ bàyyi moo ñu mat Serigne suñ doomi Serigne la ndeke Cheikh Tidiane si doomam bi sax mat na leen sëriñ te xamuñ ko. Mhm. te fekk Maodo bi mu leen joxee Serigne Babacar si. dencoon na sëñ Mansour ci biir njaboot gi la dencoon na dabbaax Malick bàyyi réew mi ci biir njaboot gi la ñoom ñu réer kër ga tas durante ci baatin am kàddu yi di dem du ma bëgg a wax géwél mais waxkat yi di jël kàddu ci kii du yóbbu ci kële wala wi di dóorante dóorante yu métti waaw waaw dóorante yu métti am ñoo xam ne dañoo téye seen rawxaan mënatuñ dara ñu mer di liggéey lu bon ba génn àddina am na ci ñoo xam ne Maodo leen defar. allahu xam nga Maodo ni mu am ni mu ni baaxee. Hmm. defar ba mu baax. Hmm. nit yàq. jege maanaam jege nit ku baax. di dee ci noppam lu bon. ginnaaw bi Maodo génne àddina. Hmm. lu bari moo xew. ci kër Maodo waxuma rek Tiwaawoon kër Maodo mu nga ba Amérique kër Maodo mu nga ba àllaaxira ca fa may waxee ku xam la may wax. kër Maodo problème dugg fa bu rëy. léegi nga gis Tiwaawoon men nekk benn sëriñ mel ni dafa am ay sëriñ ci biir. ndeysaan ba nga war a mën a nekk taalibe Cheikh saaga sëtu Maodo am na. te loolu yëpp jaxase moo ko. jaxase la. d'accord nga dem ci nawle Maodo bu mag ba. Mm. mbokkam ci yàlla. Alaaji ay Niass. Mm. mu génn àddina 1922. 23 4 5 6 7 8 taxaw ne ana nafs wala afaqu ma ay raaytaha tarani fa inni kullan min indi rabbi maam Khalifa Niass ni mu baaxee di taawi njaboot gi yar Baye Niass def lu baax lu ne Baye mu ne nuñ mel mooma ndax moo baax ñu topp ko hmm. moom la géwéle naan taaw njëkk juddu njëkk a baax ne woo kenn bonal hmm. est-ce que xam nga ne am na histoire yu xew kër Malaaj Abdoulaye tey njaboot gi duñ nangu nga nettali ko te fenoo de mais lenn rek laa ciy coppati junj ko pour nga xam li ma bëgg a wax hmm. Baye Niass mu ne suma kër Baye def nen ma fa wax ma fa lu ne dem nen ba à moment boo xam ne den may tiim di ma xotti suma yaram bi ma jàkkaaroog ñoom ni géntu ma maanaam den ma wax a wax def maa def ba doyut leen dañuy taxaw di xotti suma yaram bi ma jàkkaarloog ñoom ok biñ ko xottee yemuñ ci de ñu génnee ma man fi nga xam ne dama fa am ak muy suma kër baay problème am nga dégg lew na tey Medina suba mais lew na ak Medina amul Maolaaji Abdoulaye moo am baay mooy borom faydu maam xalifa mooy xalifa ba maam xalifa xalifa baayam la Baye Niass wootewul xalifa baayam faydu la am na sa benn histoire bu mu dul nettali dinaa la ci laalal tuuti dañoo mos a yóbbu Baye tribunal ñuy àtte waxuma kii ko yóbbu neew ma lii tax ñu yóbbu ko mais am na ñu wax ba pare àttekat bi di làppatoo mu ne lum wax mu ne Baye mii daf ne moom mooy xalifa Cheikh tubaab bi ne kuy Cheikh Tidiane ñu ne marocain mu ne ah kon kay du mu ne yow eh, eh, mën ngeen a nekk xalifa fii kii la <laughs> sénégalais étranger gars yi ne dee déedéet su nekkee xalifa kële mooy suñu xalifa te waru koo doon pour wan la ne kenn mënta sikkal benn njabooti maam laaji Abdoulaye Niass ci dafa bon mhm. man sañu ma ko yow sañoo mhm. képp ku conscience sañu ko mais lii am na ci biir kër ga te pourtant maam alaaji dafa baax yar leen ci mbaax ñoom ñu baax kuy problème ba mooy ñu yées ñu mel ni man rek dugg tontong fii tontong fële wax fii wax fële te nee naa la wilaya mooy benn nopp. benn nopp léegi administration am na problème. Hmm. te ñoo yor administration bi doxal jamono. Hmm. diine am na problème. Hmm. dem ba kër diine bu ne sax noo am ñaari sëriñ. mais famille yi famille yi. léegi kon Sénégal métti na. loolu moo dem di dem di dem di dem ba ay année quatre-vingt-sept avant 87 woykat yu mag yëpp taalibe tijaan leen woon duñ daan ah bon waaw ay ñoom aji jabu sekk ñoom xaar mbay ma jaaga ah ñoom ñëpp ci côté tijaan leen woon mais duñ daan ñemee woy seen sëriñ ndax taalibe tijaan yi boo boo ne sëñ Babacar tëgg rek yàq la d'accord ñu dem ba ay 87 ñoom ki na ñëw génération boobu nekk ay ay di way nekk ay murit di di sëmbax ci bàmba ji affaire bi neex waaw tijaan yi gëmuñu woon loolu topp seen ginnaaw murit yi jiite wàllum ambi ambiance woy woykat murit yee ci mën seen woykat yi nekk murit ñoo dàq woy jëlal Pape Diouf murit moo dàq woy Waly murit non dama la wax ñu dàq woy Youssou Ndour murit ñi ñi buñ génnee ci musique sénégalais coon sekk murit <laughs> woy jeex na di jigéen ñi Fatou Guewel murit mm-hmm. ki ne laa murit mm-hmm. Mati Thiam Dogo murit mm-hmm. donc Kumba Gawlo murit murit jeex na léegi nag ñi lay ñëwaat loolu juraat beneen tendance. ok tendance boo xam ne ku ne day taxaw samp sa sëriñ looloo waral nga déggu ci boîte bi ne ku sopp Maodo sa loxo ci kaw ñu bëri néew ñëpp naan ku sopp sañ Bamba ñëpp yëkkati loxo. c'est pas sañ Bamba ëpp Maodo taalibe du foofu leen koy xoolee. Mm. foofu du compétition mais ci côté ci côté showbiz. génération Mouride bi ñëw année quatre vingt bi mu mujj. Mm. ñëpp Mouride leen. Mm. loolu indi tendance bu rëy. moo ko yaatal moo ko yaatal mm-hmm. non pas moo yaatal yoonu murid mais moo yaatal non waxuma ni moo yaatal yoonu mu mm-hmm. loolu loolu kenn sax ñu ko wax dama ni moo yaatal seen fan si thank you waaw thank waaw donc tey taalibe tijaan yi bañoon ñu tëgg seen sëriñ ñu gis ne am na lu ñuy perte mm-hmm. sëriñ soosu modernisé bugg moo tax léegi da ngay dégg am na sax ci tarixa Tiwaawan kuy woy sëñ Babacar Si di ko tëgg léegi nangul nañ ko nangul neen ko ko Eh, bu njëkk soo tuddaan sëñ Babacar si wala Baye Niass musóoru woo ñu ne la musóorul sëñ bi ngay tudd hmm. mais ba xam ne nit ñi sellatuñ hmm. te bëgg ne nit ñi hmm. ñu may nit ñi ngànt fan nga yaakaar donc fii Sénégal feebare comprendre ok fan nga yaakaar ni fi mu toll nii feebar boobu ñu tëb ko ñu ñu génn ci tuuti ak loolu lépp ak ñi ñu fas yéene jiitee wala ñi ñu yaakaar ni ñoo ñuy jiitee après Macky Sall dafa nga ni dinañu redresser réew mi dafa nga ni réew mi dina nekk ci pente bi mu nekkoon ba léegi. Euh, pour réew mi redressé wu dafay jafe ndax sénégalais léegi réew na bari na wax tal na làmmiñ iñaan na. kooku sénégalais. Hmm. bëri na wax. waaw bëri wax boobu dem na sax ba ci am na benn waay bu ma seetaan démb ci internet bi mu ne day analyse hmm. di joxe xam-xam. Hmm. mais dama ko déglu dama ree ma xam ne kii xale bu ndaw la lu tax. nee na biñ ma invité invité njëwrin la xam ne jëwrin dama ëpp xam-xam ndax damaa noppi. jëwrin Ndiassé. jëwrin Ndiassé ci ban émission. Ngonal. non euh, émission Ngonal bi ñuy invité jëwrin Ndiassé yow nekkoo woon invité yow animateur léegi pour euh, Sénégal xam ko Ngonal bu nekk Cheikh Ahmed Cissé rôle bi ci Jojo am Sanex am ko ci naa am ko ci Cheikh Ahmed Cissé loolu la ci am duñ. taxawawul rôlu invité day taxaw rôlu animateur buy poser question kon foofu euh, di tëkkale ñaari xam-xam yi mu dugg parce que boo amee gan danga koy dalal moom question rek la mën a wax thank tey man maa dalal Ndiassé waaw waaw leeral naa ko loolu bul ci attardé wu ma laaj ko waaw mu tontu ma noppi donc pour expliquer le lépp mënul maase waaw pour expliquer le que waaw euh, bari neen wax waaw waxkat yu bari amuñ xam-xam mu dem ba ñuy am xam-xam hmm. dañuy ragal wax parce que boo waxee ñi xamul dañuy blessé wu dañuy blessé wu sax dëgg la dañu jàpp ne da nga leen tuutil doyo dal la suñu lay attaque amuñ argument dëgg la sa yaay sa pap saaga sa physique fa leen jëm hmm. parce amuñ argument ak tuumaal ak sosal amuñ argument ah, loolu donc tey hmm. war nañu mun a teg côté administration mën nañoo dimbale teg tey diffamation ñu méttil ko képp ku diffamé nit lu mu bon bon dix millions nga koy fay soo ko mën dafay dix millions deux cents de prison ñu defal leen ñiy defar mais defal leen condition boo xam ne dangay ngay bay deux ans su métier rek wax ju ñaaw bu wàññeekoo ci Sénégal rek fii amuñ problème mu agressivité bu bari problème verbal la ñu am wax bu ñaaw bu wàññeekoo Sénégal léegi nag ñu ñëw ci ku wax ci public fen lan moo la ciy fekk xam nga Ousmane Sonko fen na deux cent millions moom moo njëkk a fen ci réew mi fenn deux cent millions ci li justice wax justice moo ne dafa defar déformé li mu wax du dëgg ñu laaj ko deux cent millions mais 200 millions yooyu ñu yooyu ñu teg Sonko dañ war a dem ci ku mel ni Cheikh Ahmed ne moom sexologue la lan moo ko ko def ndax am na xam-xam bi ndax am na mérite bi ndax ku ñu war a déglu la bu dee lii rek ñu ñaf ko ci kaso bi ba su keneen ñëwee war a topp toppandoo Cheikh Ahmed xam ne waxi doof kaso la la yóbbu ñu yóbbu la kaso man loolu laa daal ku toogati ci mbooloo wax débat télé wala lu mënti doon da ngay fa loo xam ni da ngay you should be accountable for what you say maanaam la nga wax hmm. dafa war a am comité bu ko càmpar comité buñ ko càmbaree waxoo dëgg dangay génnaat ci nit ñi ne da fen ñu suspend la yow dootoo waxati trois ans Amérique boo defee fraction yu ndaw yi doo dawal oto ñetti at. jërëjëf Cheikh donc pour réew mi dem. Mhm. faaw kenn ku défarme mhm. ñu teg la lu ko jar ku waxu dëgg nga féetewoo sa ñàkk wax dëgg ba pare askan wi xam ne da fen Sénégal day dem ci kanam. seen émission jéggi dayoo ñu leen di dig rendez ba suba ak jàmm incha allah.